ara vererek Ara vererek Jarumun dövene dereterek Leyla ara vererek Jarumun dövene dereterek Leyla ara vererek asalaamaaleykum mbokk yi ñu ngi leen di nuyu di leen jaajëfal lu bare bare rawatina yéen ñi nga xamante ne ni yéen a safoo di follow suñu media plateforme ngi fi nga xamanteni ni moy bis ko jaakaalo suñu artiste bi ah ba tax na duma def dara rek ñu diko di mu introduce bopam ñi yaatal suñu waxtaan ak mom na nga def. jamar rek mané ko assalamu alaykum suma mbokki Gambien ni this your boy D Black. si mi si Black. Mm-hmm. yeah mané ko ko jógee kunda represent Arab nation. represent Arab nation nation ok the black moom nag lu ma koy njëkk a laaj mooy tur bi fan la jógee. waa tur bi moo nekk man rek cause ku xool xam ne am am black ok so kam man I want to know whether kam mm. like nit moo la ko tuddee wala kam yow yaa toog rek nga ne dama ñuul and then I have to name myself after this mënuma understand the black bi fu mu yaa kenn tuddee moo ko daal. Mm-hmm. comme the black itself tuddee nañ ma blaaka mm-hmm. waaw ooyee nañ ma blaaka but I chose the black the black yeah so léegi moom mooy the black comme ni ko gars yi di waxee rek man moom euh, tey mu nekk suma first day ma daal di jàkkaarloo comme nit ku ñuul mu proud si boppam ba daal di tuddee boppam the black ba tax na duñ def dara rek di gën a yaatal suñu waxtaan ak moom tey ji wax ñu tuuti sa story Deep Black is a music lover mm-hmm. who listen to music but not doing dancehall music and doing hip hop xanaa mooy loolu waaye ku ma xam na ne comme nu ma mel music yi na cause suma face appear na si media bi bu yàgga because of music okay. cause do for music and what do for my star mm-hmm. so face nekk all over the world so comme loolu rek wone na ne comme xam nga suma love si music xam nga. ok so loolu rek man dama la bëggoon a laajte music fan nga ko dooree is it comme time bi nga doon dem school la wala ma doon dem la. Mm-hmm. cause faroon naa de am gang comme suñu ma doon àndal like goli Gaza bi. Mm-hmm. so man goli side la so am naa niggas yoo xam ne day dead Gaza fan. like what we normally do during break dañu dem bag bagayaat bi mu am kuy represent Gaza bi man always I represent di Goli side mm, yeah so dafa woy woy Gaza ma woy woy Goli ñu class so which means ne comme like music dafa door loo xamante ne since day one yaa ngeeg moom di kurtu karta ak mbir tey jii euh, bala nga doon start music mm-hmm. si yan métier nga nekkoon waaw man man dama juru si kër boo xam ne dama juru fekk am métier yi noonu. Mm-hmm. métier boo xam ne suma daat boobu la koy def ak mooy loolu noonu. maçon dem naa def naa certif am naa certificat GTTI si moom soo léegi mooy loolu noonu lu ma seet la daal. Mm-hmm. soo léegi de black man gis naa ne comme like da génne benn vidéo boo xamante ne na deretal <clears throat> xaw ma na arabe something like that man moom vidéo bi depuis ci suba maa ngi koo déglu because nit ñaa ngi si bitti fële ne la ku si mel ni yeneen artistes yi di hmm. woy Fatou Jalika ba moom dafa ñëw rek na arabe bi lu xam nga mm-hmm. comme la kenn bi lu moo génnee mm-hmm. xam nga sure so dafa am romantique mm-hmm. am agressif so artiste bi su choosee pour njëkk a génnee romantique dafa des si moom ak lu ko people yi di um, naxalaat nga ko fiile mun ngaa génnee mun ngaa génnee loof cuun nga expect ne people dañ la si fiile fiile wuñ la si nga génne cuun mm-hmm. boo xam ne is like different from that aggressive even violative sax nekkut violence sax waaye xam nga nga am si dara mm-hmm. nit yaa ngi génne cuun yu am violence sax ñu am si dara waxuma la mooy loolu noonu xam na arabe na arabe is like suma geng bi laa la la la woyal rek Arab nation bi rek. ah ok bu mu introduce boppam. parce mhm. que mu ngi doon li nga xamante ne ni mooy na Arab nation boobu noonu. ba tax na mhm. comme like da toog feel like pour yooyal sa gang bi rek. nga jëlee ko na arabe. waaw na arabe cause mhm. dama feel dama dama bëgg everybody welcome. da proud of Sagaida. guidance yeah fully fully fully because don't artist the for don't loo xamante ne nii like single njëlbeen ba mun ngaa ànd how ñi nga xamante ne know ñooy say xarit mm. say am di jàmm waaye di nga dem ba mm. toolu foo xamante ne nii yow di nga di nga uyu wala nga banya receive sax seen message yi parce que ñu bari ñu ngi koy wax suma xarit la won waaye bu mu doonee artiste di woy nit ñi di ko dégg mu fàtte fu mu jógee te gis naa ne yow man suma mentor Movado, he always say that money can change me. Mm -hmm. yi People didn't go there when he say money can change him. Nekut si lu mu sol, wala si lu mu téye ak mooy loolu noonu. Mm-hmm. people yu mu àndaloon from day one. Mm-hmm. ba tey ñoo la fa nekkal. so moo laa woon mooy loolu xaalis ceeñu ko so ñun fame wala xaalis ceeñu ñu daal si suñu real dark si yem. Mm-hmm. real fresh suñu keep it real from day one. soo léegi na arabe bi man moom ba léegi maa ngi si na arabe bi parce que bëgg naa ñu gën a yaatal suñu waxtaan ci loolu noonu na arabe bi man déglu naa ko na dereetal la hmm. euh, dem na ba tudde si ki nga xamante ne nii moo nekkoon suñu président bi di Yaya Jammeh ñu ngi koy nuyu di ko jaajëfal lu bare bare bare lan moo la motivé daal man man mënumaa ba nga woy loolu noonu dugal si kooku nga xamante ne ni mooy Babali Mansa waaw Babali Mansa di name itself am mm-hmm. honorable am mm-hmm. Gambia Gambia mus naa nekk suñ jiit mhm. xam nga su ñaawee ñaaw na waaye su rafetee tam rafet na xam nga mhm. waaw soo moy loolu noonu daal Yaya Jammeh dafa nekk koo xam ne like comme man of its word la moom ma laa su ne nii ñun Gambia ñun xam nañ ko jaruma mhm. dara si moom loo xam ne comme mooy loolu noonu waaw so comme man dama nekk koo xam ne like si rap bi dama comme du ma wax dara ba pare ma génne fa suma tànka lu ma wax rek dama si taxaw mhm. so loolu moo tax like ma use fa turi Yaya Jammeh ba xam nga comme nekkul ne dama ko biif wala dama wax loo xam ne mooy loolu noonu. non bisuma ko sax parce que man bu ma dégluwee wéy bi dama <laughs> kontaan because am na artiste yu bari duñ tudd turi kenn am na artistes yu bari ñu ngi fële na la si biti mhm. comme like duñ toog bañ ne ñu wëyal ko wala ñu defal ko nii wala ñu defal ko leneen mhm. waaye moom doon génne na music video boobu noonu daal si daal di si tudda kooku nga xamante ne ni mooy Yaya Jammeh ak keneen something like ba Alpha Alpha moom dañ ko coup d'état soo da moom ah, ma ne ko Alpha Condé dinañ la coup d'état you know ah, ok maanaam nekku ne loo xam ne comme like ñoom laa wëy sax mhm. waaye comme dama leen use si biir wëy bi ak lu ma miin si biir si paat boobu noonu fu ma leen use xam nga fu ma la wani mm-hmm. mm-hmm. cause ma ne Alpha Condé dañ la coup d'état mm-hmm. so kan mooy Alpha Condé so loolu si Deep ak la des sama mm, si yow la maanaam moom dafa junjur nit ñi rek waaye moom lépp mu ngi si biir ñu gën a yaatal suñu waxtaan ci loolu noonu waaye laata may gën a xuus ah, li nga xamante ne ne mooy suñu waxtaan jox ñu benn freestyle si naa dereetal na araabal boobu noonu waaw ma ne <laughs> defini jaame di reyaate rek mhm. rapi yapay la ñuy saraxe rek mhm. buwal mu na alkankele bàyyi ma ma dem joxoo ma lekk si gém bi ne salaama lekk Alpha Konte nañ la kuréeta wax bu bëri ni nga yaa ko taal mhm. making hits making capital rap di gang sa city man ma doon radical ba tey nag moom doon naa artiste boo xamante ne nii macha allah ay waxam mën na ko wax nit ñi gisee ko neneen waaye moom fi mu tënkee wax bi loolu defe naa ne moom rek ah moom moo ko xam te bëgg ko bokk ak kenn waaye nag ñu ngi ko jaajëfal ci loolu noonu rawatina kooku nga xamante ne nii mooy Babili Mansa a moom dugal ci biir woy bi si gis naa ne laayit nañ woy bi man dama xamul ndax secret yaay jëme bi lañ la wax nga dug mën daa mi moo understand woy bi da sa ok soo léegi ñu daal di continuer ba tey ah. mhm. euh, ki nga xamante ne ni mooy na na na something like sa tur bi is na black and red. fi nga xamante ni mooy Bisco di gën a di yaatal suñu waxtaan ak ki nga xamante ne ni mooy de. black. be black. the black the black the black. nan nan nan nii rek daal ah, waaw ok soo léegi tey jii du ma def dara rek du gën a continuer suma waxtaan ak yow euh, comme like ndax mus ngaa organise show. Mhm. comme ba si biir show bi dara ñëw yaaxa ko si bés boobu noonu te expeguloo ko woon. waaw organise woon naa show like si lockdown bi. Mhm. four day korité la woon I think. yeah all right mm-hmm. at Bakau waaye ñu doon expect cause lockdown la xam nga dañu waxoon ne comme no chill stuff like that xam nga laan mm-hmm. so but demee na fa noonu daal toog nañ ba si digga bi xam nga ñu am lu ko yaxa waaw comme forces yi ñoo fa dugga si xam nga stop show bi waaw so am na nit yu bëri la fekkoon si biir am na ñoo xam ne ñoom ñu ngi ragaloon daal. Mhm. boo waral ñu ñu war a escape xam nga ñeneen ñi jot si gaañu waaye serious lu daal xam nga. Mhm. alhamdulilah tamit kenn amu si lu over serious loo xam ne sonal nañu si benn booram. so maanaam doon na artiste boo xamante ne ni mun nañ ne organise na li nga xamante ne ni mooy show am ba si biir gars yi ñëw ah jëm ko ko yaaxaar waaye ba tey loolu téyewut ko hmm. moo wane jàmbaarteem waaye tey ji euh, relationship bi artiste yi ku si mel ni comme big artiste yi si biti hmm. gis nañ ne bifante dafa doon loo xamante ne ni comme laay léegi ñoom dañ ko bugg dugal seen système bi ndax yow tey ji dafa am ki nga xamante ne ni bif na la yaa ngi waaj pour tontul message am boobu noonu hmm. wala amuloo comme bifante ak benn Ah, no no man awma bifante ak benn artiste te foog ma ne tamit mooy loolu noonu daal li nga xamante ne nii mooy sa musique si ban studio nga ko doon recordé suma first recording maa doon maa doon maa doon attend studio ras bi you know am naa ñaari song mm-hmm. after bu ma ñaari song yooyu after dama toog waaw after si dama ñoom mi ak am indi indi mm-hmm. nekk suma waaye xam nga pare pour jàppale xam nga mm-hmm. as brothers ñu jàppale ante ñun ñaar so right now moom laa nekkoon di liggéeyal moom laa amal arabe bi nii. Ah, ok moom la amal arabe bi. soo léegi eh, <coughs> doon artiste ah commencé di ñëw si li nga xamante ne mooy game bi ku nekk xam nañ ne comme like neexut yan difficultés nga xamante ne nii mooy sa music carrière nii. waaw musique bi moom mooy loolu lu mu gën a nit mooy xaalis daal. Mm-hmm. financial problème as commune artist dañ ko di overfeel xam nga. Mm-hmm. comme man sax. suma boppa laa mun a waxaw ma keneen waaye xam naa ne daal upcoming artist ñu mel ni man daal xaalis moo ñu taxa aga fu ñu war a aga sabo tey mm-hmm. cause ñu ngee cabane lu ñu def kenn daawuñu ko daal xama mm-hmm. yee ok so xaalis mm-hmm. xaalis man kam like mun naa ne comme every time saa suma interviewé benn artiste nii comme lu may njëkk a jàmbatal mooy naa ne comme like nekk si biir music industry bi aajowul ne am nga wala lo parce que sa talent rek nit ki su la gisee nga am ben talent ci yow defe naa ne comme like mom comme suñ promoteur ci ni nii defe naa ne ñoo wara ñew sa di pushen seen parce que yow génnee talent bobu non nga am mm. waaye lan xaris bi man mënuma understand lu lolu waaw ko sama nga tamit moy lolu promoteur yo nekk di wax nonu tamit lolu seen liggéey la ya understand mm-hmm. te ñoom tamit ci lolu lañ nekk di am am mm-hmm. so there you are not expecting them pour ñuko def free Am nga fuma la wax mm-hmm. so most of them tam dañ la day laaj dara xanaa nga am man suma maasi mom amna ci did you mhm. comme suma manager sa comme kuma started and those si and diesel mhm. moom promoter lan you know from the unruly entertainment mhm. big up to Umar Diba maa ko nuyu suma koro bi xam nga the CEO of entertainment moom tam mu ngi def lu bëri si suma carrière xam nga ko suma promotion yëpp mun naa la wane half bi yëpp ñoom ñoo ko nekk di def xam nga <clears throat> soo léegi tey jii euh, soo demoon tey ba war a change dara si music industry bi lan lay nekk. lu ma change si music industry bi. Mm. waaw xam nga di black aadi si boppam la. Mm-hmm. ku bugg a indi style am si game bi. ko soo xoolee music industry bi outside bi style moo fa nekka mm-hmm. ak aadi su nekka di toj seen style am nga fa ma laa wane. so like di black tam dafa gomme style am mun naa change lu bëri si music industry bi am. Mm-hmm. especially hip hop side bi hmm. soo léegi tey jii ndax yaa ngi plan pour am benn upcoming events wala. waaw maye plan lu mel noonu nag after weeri koor bi you know. after weeri koor bi maa ngi ko bëgg a def suma xuut Fajukunda fu ma juddoo you know for the first time you know. yeah te maa hope everybody génn si ñu support ko am nga support la te xam naa ne ñëpp dinañ génn si incha allah so léegi yaa ngi plan pour am benn wéy ak yeneen artistes yi euh, daal mën naa ni comme like waa Sénégal yi ak yeneen dëkk yi ndax yaa ngi plan pour am music ak ñoom waaw loolu noonu bokkagul si sumay plans nag mm. pour outside artiste yi nii comme sénégalais ak yooyu. Hmm. non bokkagul si. maanaam gisaguloo sa bopp daal pour am music video ak ñoom. of course me I'm ready cause my relics am xam nga. Hmm. comme mën ngeen koo déglu comme noo leen di dégloo ñooñu seen boss. Hmm. so mooy loolu noonu I'm ready for any other artist waaye right now comme noo ko waxee comme mbax man maa ngi plan. non non non. waaye comme I'm ready. bokkut say schedule daal. for right now right now. ok léegi li nga xamante ne ba léegi si music industry bi before ak léegi nii comme like yan nga si gis. allah xam nga. ku si mel ni comme ST Jizzle attaque. Mm. ñun la woon ne ne comme xam ah, million si am fale ku ko mun a ku ko mun a liggéey nga ñëw de. Mm-hmm. game million yaa ngi fi. ko mm-hmm. soo xoolee léegi alhamdulilah ST. mu ngi make million every album launch na am xam nga so mu laa wane képp ku ñëfe rek mhm. di nga million si game bi xam nga right now is different from before xam waaw so léegi ñoo nga xamante ni ñooy esti du ak uh, attaque mm. defe ñoom ñoo nekk de top gis léegi si Gambie bi ndax euh, comme like relationship bu ñoom ñoom top artistes yooyu noonu war am ak artistes yu commencé ndax foog nga ne relationship bi mu ngi foofu ndax ñooñu noonu nekk tey ci kaw ñu ngi jàppale ñu nekk si suuf of course war nga xam parce que yaa ngi si biir music industry bi. parce man man man man suma booba laa de mën a comme xam I understand. because mm-hmm. like industrie bi fa yaatu. Mhm. so yow mun loo nekk fii nga wax lu nekk si biir. yaa understand. Mhm. ST lu mu am ak relationship am ak artiste yu ndaw yi kenn xamut. mais bi mu nekk kenn xamut so yow mun loo toog fi nga ne duñ dee yooyu noonu mais bi yow suñ la jàppale wutee that doesn't mean that. jàppale wu jàppale wu so man lu ma mun a wax foofu dool mooy xaw ma daal. Mhm. waaw waaye comme man aw ma benn like comme nga ne artiste bu mag si game bi koo xam ne si ronaam laa nekk di. ni non non non oh. man ak suma geng bi la dal yow ak sa geng ak suma hood Fajikunda. ok yeah. Mhm. soo léegi moom doon na artiste bo xamanteni ne comme moom léppam si biir gengam la léppam si biir lim la léppam mi ni nekk <coughs> ci li nga xamanteni ni moy sa hood bobu nonu ngay wax. faji Fajikunda. waaw da nga ne Fajikunda. Ah, Fajikunda <laughs> ok duñ def dara diko jajeufal ko jaajëfal tay sa fans lan lañ wara xaar ci yow. Ya. waaw xam nga ku si mel ni man man moom depuis ma tudd na dareetal bi na araabal boobu noonu moom defe naa ni comme laay maa koy séntu daal yéen a ma gën a xam waaw xam nga comme mooy loolu noonu rek sëñ Leyli si lan lañ war a expect si yow. moom laa la wax ñu déglu xam nga mhm. Gambien bi dafa am style of talk yoo xam ne comme. Ah, noonu daal xam nga ku nekk ñeneen ñi ñu ngi ñëw mhm. ñeneen ñu ñëw mooy loolu so su ma la ne mooy loolu. mooy loolu ma ma. ok kon gars yi mooy loolu ay ca. comme di mhm. black di black daal artiste boo xam ne la daal comme mooy loolu noonu comme mun loo wane for example nga ne ma ne maa ngi génnee na arabe rek bi. foog nga ne aggressive tune rek la amee but I'm coming with mm-hmm. some lady stuff you know te na surprise dëkk because dama xam ne nekk hit tune fi ladies dee bu ma ko drop rek dafa nekk hit tune mm. yow sax di ma call nga ne ne ah waxoon nga ma ne nii ak nii ak nii ok kon ñu daal di xaar loolu noonu waaye tey jii comme mm-hmm. yaay artiste yu jigéen si Gambie bi mm-hmm. nekk artiste bu jigéen di wéy tey kan nga foog ne comme laay moo nekk di topp artiste bu jigéen si kaw ba pare tamit lan nga yaakaar ni comme jigéen ñi war nañ ko mën a doole si li nga xamante ne ni mooy music industry waaw jigéen ñi ñu ngi def lu nice ku si mel ni Miss Jobis. yaa mu ngi def lu nice sister. Mm-hmm. yaa dama dee déglu vibe paam yi mu ngi struggle comme yëfi jigéen sax comme mooy loolu daal moo mérite si comme si yëfi game rap bi nii yaa understand. Mm-hmm. mooy loolu waaw bot dégga dégga dégga dégga ku su mel ni daal laa xam mm-hmm. moom laa dee déglu waaw ak suma sista Mariam waaw moom tam mu dee lu nice mm-hmm. waaw diis itam may capa benn rapper on the life la nekk xaw ma daal waaye xale baa ñun laay tiim mm-hmm. slim nii dee spray boppam bi waaw moom tamit mun na lu mu def naka ma. Mhm. ok so which means ne artistes bi ñoom tamit ñu ngi dal di góorgóorlu. waaw si nga xamante ne nii mooy mm-hmm. na tamit kooku nga xamante ne nii ah, jigéen la nga yaakaar ne talent bi mu si yow mun nga daal di génn fësal sa bopp. Mm-hmm. parce que léegi adduna bi duñ koy góor taxaw rek jigéen mun na fa egg ah, ñu daal di góorgóorlu jéem a jàppale suñu artistes yu jigéen ñi nekk si biir dëkk bi ba tax na moom nga xamante ne nii mooy mooy The Black ñu koy daal di jaajëf jaajëfal man nag ci saatin bi maa doon wax man ak moom kan moo gën a xees xaw ma ñuul daal xaw ma set mu ko waxee waaye moom nee na moom a gën a ñuul tax na maa ngi ko koy jox moom nag ah, doon na nit ku ñuul gis naa ne proud na si boppam ba daal di tuddee boppam de black ñu ngi koy daal di jaajëfal lu bare bare bare bare di ko wax ne nag fépp fu mu bëgg a aaga rek mun na fa aaga ah, en fulaam ak faydaam war na ko mun a may loolu noonu waaye ñu ngi ko daal di jaajëfal di jaajëfal waa Fajikunda lu bare bare FKCity ñu ngi leen di jaajëfal lu bare bare waa Fajikunda di leen wax ne ngeen toog xaaran de hmm. blague mu ngi andi lépp loo xamante ne ni yéen a koy fas yéene di séntu ci moom ba tax na ñu ngi leen di jaajëfal lu bare bare yéen ñi nga xamante ne yéen a safoo di follow suñu media plateforme bi di leen wax ne man la seen xarit seen soppe di Awa Eva di leen jaajëfal di ko bàyyi rek moom it mu daal di tàggatoo ah, ba beneen yoon waaw maa ngi ko jërëjëf jërëjëf Gambia jërëjëf Awa mm-hmm. for the time xam nga mooy loolu noonu mm-hmm. this my first time having an interview mm-hmm. so jërëjëf daal xam nga kontaan naa bu baax tamit xam nga mooy loolu yeah Gambia all I have to say is like check on D Black you know na arabe rek on YouTube yaa ma gën a know Black official more tunes coming yeah kontaan nañ bu baax a baax a baax ñu ngi woon fi nga xamante ne nii mooy Bisco di leen jaajëfal lu bare